waaw comme léegi rek ba may jël parole li mu wax ministre bi parce que nee naa ko même bu dul mbiru xale yi ba ñuy war a ba ñuy war a ba a euh, am euh, le mois de mars ba pandémie bi commencé dañ doon xiif bu mag dana am ci réew mi xiif boobu nag yàlla def na tey bay na loo xam ne war nañ ci mën a dunde ba xiif boobu du am loolu déjà sant yàlla la beneen bi ci topp dama ko ne mbay mi mun na régler immigration clandestine bi nan la koy régler mooy xale yi ñu jox leen former leen jox leen suuf ñu bay ni leen jox suuf ñu bay parce ngeen ne léegi mbay la mbay warul yem rek ci bay dunde léegi mbay bay jaay am na bay dunde am na bay aussi eh, jëriñ ñeneen am na donc ci wàllu ceeb bi gis ngeen ne tey ceeb bi alhamdulilah rabil alamin mooy li mu wax léegi rek ceeb bi en Chine koy jëndee wala ñu jënd ko Inde te ceeb la boo xamante ne nii ceeb bu bon la laa ko mën parce que ceeb boo xam ne nee na ñëpp d'accord nañ day joxe jarat ñëpp d'accord nañ ne ceeb bi eh, du indi wér-gu-yaram ci ci réew wi donc ceeb bi nga xam ne ñu ngi koy bay fii nañ ci jëm a góorlu xale yi nga xam ne ñooy suñuy doom suñuy rak yi nga xam ne ñu ngi di mbëkk dem ñu utal leen suuf su doy utal leen ndox utal leen financement formé leen ba nga xamante ne loolu ñu bëgg ci auto autosuffisance engrais yi di ñu am ko ci ñu ko mën a amee ci mboq mi gis ngeen ren li ñu am ci gerte barina na macha allah mais aussi ñu doole ci aussi dooleel Sonacos bi nga xam ne société nationale la bi nga xam ne tey lu néew na doole néew doole bi boo ko waxee mooy lu muy produire ci wàllu. dawlin tey waroon 10 euh, pour cent sax xam naa matu ko yan yëpp dañ koy jënd feneen di indi bu ñu ko doole woon ba am huile d'arachide boo xam ne pire la nga xam ne nit ñi dana ko mën a euh, dunde am naa yaakaar ne loolu dana mën a am solo ci réew mi. mooy li ma wax sànq dama ne boo jëlee matériel bi jox ñoo xam ne dañu am doole. ku mën a subventionné 14 millions tey nga jox ko benn tracteur tracteur bi mu ñëw di ko luyee ay heure di ko luyee ay bés di ko luyee nga xam ne ñooy béykat yi loolu defe ne dama ne jëriñul béykat yi lii jëriñ béykat yi moo ñu def benn GIE nga jël ay tracteur jox leen ko ñu cotiser subventionné ko ku bëgg a labourer nga joxe instant ñu la ku bëgg aussi ñu toppatoo sa tool nga joxe instant ñu toppatoo ko loolu laa ministre bi ne loolu mënoo nekk moo gën ñu koy jox ñi nga xam ne borom doole lañu ñooñu di ko luyee waat ñi nga xam ne dañoo néew doole moo tax toujours ñu naan Euh, euh, euh, cere bu làmb ñu baadoo koy siim loolu laa ba loolu laa ba ñu def. waaw xam nga ko yokkul wañ yi te am naa yaakaar ne état nu mu war a demee ay escalier la ministre wax na ko démb nee na fast track la maanaam tey daagu ñun waruñu. te yokkute di nga xam ne réew maa ngi yokk mooy ci budget bi nga koy xamee ñun yor commune sax danañ toog mu yàgg ñu ne suñu commune recette yokku na nangam yokku na loolu mooy doxal am réew. réew dafa war a dox ci recette yi dafa war a yokku te bu recette yokkoo yokku cere yokku ñeex lay doon moo tax tey jii gis nañu ne agriculture bi li ñu ci def ci wàllu xaalis yokku ci xaalis aussi mu am une hausse ba pare nag nga wàññi li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy présidence de la république am naa yaakaar ne loolu bu ko suñu président Macky Sall defee loolu wane na ne tey euh, bëgg na def lu ñuy wax bonne gouvernance pour lan ñu wàññi xaalis bi ki nga xam ne mooy fi nga xam ne mooy njiit ndéem mu ne jël ko jox ko askan wi noonu la budget boobu tëddee